الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعمين أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مسليا على كريم قاد الورى للمنعمين أذكر ذا العرش المجيد شكرا يلاقيه مزيد مسلما على وحيد بكلكلي وكلمي سكت إذ قسني بقمة ما حسني ذا قمة في العلن له وفك ولمي له كتابي داعيا بما يحب وماضيا وقاد لي أغراديا زادا لدار الكرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر سعينا بالمنتقى المحترم للمتابع الذي ترام له صلاة وسلام مع امتداحه كل عام رمت من المكرمين صل على من جعل قطب الوجود حين حل وآله ذوي النحل وصحبه وكرمين صل على من جعل خير نبي فضلا حين بونا جدلا في دينه وعظمين صل على من جعل خير نبي فضلا حين بونا جدلا في دينه وعظمين وسلم يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأصفياء إمامنا المعظمين وسل يا ذا نعمتي على رسول رحمتي مغلاق باب نقمتي سبب كل نسم وسلما يا سمدي على النبي محمد وآله والحمد وكن ذي الترسم يا ذا البقاء والقدم مني تقبل خدمي والتد ذا تقدمي بها منير اللقم ذاك خيار العربي ذاك منير الأربي ذاك سبيل تلبي تبيب أهل السقم صل على باب الهدى نائم مدى مول الندى ليس مدى مهردا باب العلا والكرم وسلما على الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والقمين بذا الثنى واحترمي ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحميد من بدقامة يقود إلى الجنان من عمين صل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنذير بنقم ونعم ذاك رسول الراحة وذاك رحب الراحة وذاك ذو الفساحة ذاك رسول الملحم salli wa sallim sarmada yaa man kafaani kamada alele bekiji ahmada waliyakun bin hamim li jamila nazahiri wa batini bi tahirin ya mahiyan kabairi bi jahihi walamami ya man laday amali anni alal muzammidin salli bi kulli lkummali maa jamii alumami wasalimanna ya badia ala almutaai walmuti zaka almusafau safi habibika almufahami salli ala almubajjali ya man hama an xajali wa indaka huwa jali wa indahu wa faqimi yaa rabbana yaa rabbana yaa xibbana minna taqabbal kurbana bi Mustafa Kassulami salli wa salliman ala. màggal gi moo ngi tàmbali gaaw bi jàll la 26 la tàmbali bisimilah li ñuy jàng ci suur ëpp na junni kaamil Cheikh Ibra daa yokkaat njàng mi yokkaat mbooloo mi yokkaat berne yi te daara yi teew waxuma ne ba waaye yi teew ñooy jàng sax suur. junni kaamil yu teg ba léegi nii kon yokkaat na waaye yokkaat boo xoolee jëmmi maanaam xasida yi yokkaat bernde yi da da màggal gi Sëñ daa waxoon si Gaawaan ne ko dee ko woote bis ba ma jaaroon Daaru Salaam 1903 na la leer ni bis la bu am ay barke bari nga ne bari mbóot ne ko ku fi teew Sëñ Tuubaa waxale ku fi teew yàlla jégal say bàkkaar ku fi teew dajee kun muy yàlla mi kun ku fi teew booy dellu dem xayru maraam xayru maraam nag mooy li nga bëgg ci wér gi yaram mboolem lu bëgg mu defale rek mooy xayru maraam mu ne ko sëñ boobu bi ñëwee nag doom si Moudou Mamoun rakki mag ñu baax ñi fi jiitoon ñëpp doom doom soxna May Kubra da ko yokkaay yokkaay woo xam ni teg lépp nag ci loxob suñu Cheikh Anta suñu Cheikh Anta yaatal ko mu mu ëgg si ñi commission culturelle bi ñu ñu kenn lañ ci ñoom ñu sam si ngeen jiitee ko waaye soo xoolee màggal gi daa baax ci réew mi baax ci adduna bépp boo xoolee màggal gi màngalu nangu ñaan la te feebar ñaan a koy delloo la yonte bi wax sallallaahu alayhi te li xale yi jàng ci yi bàyyi ci ndaara gaaw ba léegi tëj ko ci muntaxaa mi ñëw wëkrim daa wax ni li fi gars yi wus laa fi wus barab bi suñu tubaab yi njëkk a ñëw teew suñ borom daaru teew ci rafaal teew ci isaa jenn teew magal googu magal gi umu woon bin magal du am mu war a mu nday màggal moo tax mu am taxawaay boo xam ci màggal yi moo kay màggal yi ndax maanaam ni mu kawee mooy màggal juróom fan la boo xoolee chaque jour ay nag yi nag la ñu lay jox lan jàng alxuraan rek boo xoolee berne donge yi fi na berne tey fi doolu yu démb ya jiitu ak yu bëkk démb ak yu bëkkaat démb ya du du benn fan moom te yooyu yëpp boo xoolee ci moom daa waxoon ni ci ngaan da nga xam ne ko muur maamun na nga ko wootee ma jàppale la ci bañ xam ne bis bi si waa ñëwoon fii nii mooy nday bisi du moroom benn bis te bu amul woon cant du am màggal du am dara du am intuba nee woon na nga ne léegi ma Cheikh Anta ganale ci weeru koor yi ba mu ñibbisee géej mooy firnde ni Cheikh Anta mi kat xeetu bi yàlla la sopp yàlla la di yaafatu muxtaar fi sawaali tashadu annahu habibul waali kon da ni boo xoolee Sénégal mi njëkk a Cheikh njëkk amub dëkk njëkk a dem Gabon njëkk aji màkk njëkk mun xasida yi njëkk a fay journaliste muy muy muy wax ci Sëñ Tuubaa waaw defoon na ko génn bi rajo jox gaa yi teg ngir leen bëgg Sëñ Tuubaa kooku boo xoolee bisam moo waral mu alaa doome lool ñëpp ñëw kenn boo xoolee bàyyiwul xel fii réew mi toll ndax bis bi day nangu ñaan daaw biñ ko tëjee nit ñoo ñëw bañ lang ñëw seen bopp ndax xam nañ ni kenn ku ne xam nga si intérêt boo xoolee daaw bi mu ñëwee ci la taw ñëpp daal sébulu buy demee commencé kaamil junni kaamil ci la taw ñëpp sébulu kon loolu kon kon kon kon màggal gi daay jig réew mi euh, réew mi jikko moo waral kenn ku ne ñëw ak na ngay ñëwee boo xoolee. 1919 daa jël 25000 tonnes ci ci ci ci ceeb. distribué ko Sénégal gépp murit te jaan ba ci chrétien ne ñëpp nañ am boobu mooy mbasu metti moom vingt cinq mille tonnes laa wax ñaareel ba hôpital Lukke bi nekk Njaaréem mi ngi ko tabax 1912 daa génnee 2500 boobu jox ñu tabax ko commerçant yi daan dem def import export ñoom mbaalo sekk ñoom daa paasal ñu bari ngir ñu dem man de ñëw jëriñ Sénégal kasaalikaay boo daan bay bu bayee ba mu wala bu réew mi bayee ba ba ñoral day jënd gerte ci waa réew bu taw bi taw bi day jënd fukk mu jënd cent franc pare lebal ko gars yi. maam maam sax bu doon bu doon dund jamono pétrole bi ngay dégg dana jëf jëf joo xam ne ba nga ne maanaam réew mi na ko moom daal acte boo gis ci wàllu économie liggéey na ci moom ngir bëgg nit ñi am seen autonomie bëgg murid yi boo xoolee am seen euh, seen seen mbiri bop rawatina jullit yi boo xoolee moom mosut a bàyyi dara. ma ne kon social moom te daawoon nañ ko tubaatul gi masa bi da ko sànci ne ñëw leen ñëw leen di jaay jëralul ma jënd li nga doon jaay lebalaat la ko lebal ay jiw di ko di ko jox baykat yi di jéggee seen gerte bu tubaab bi jëndee fukk mu jënd ñaar fukk kooku day mel social moom ci mu la dëppee ay jàkk ak àggale na ay jàkka Dakar gii boo xoolee bari na quartier yoo xam moo ko moomoon damay nit ñi fu ñuy liggéey sànci bitig boo xam ne liggéeyam bitik mooy. bàyyi kenn jaxate moo yorom bitig bi waa ko Sëñ Tuubaa ñoo koy ñoo ci jël bu jeexee mu sosibaat kenn du fay borom bitig boo xam ni daa daanu mu joxaale la capital ba nga jugaat boo ko joxee mu jox keneen mu amaat loolu moom fi loolu neewoon na li may def ci réew mi ku gëstu da nga yaakaar ay léeb la da nga yaakaar mënut a nekk kooku day mel social ci moom dëppee boo xoolee kon yal na yàlla fayal ñu ko ak rassemblement doomu aadama yi mu nekk a dem te Tiwaawan 1922 jaale El Hadj Malick joxe fa boo xoolee deux tonnes ceeb ñaar fukki nag woo Cheikh Babacar ne ko da nga téyewaat xadara tijaaniya ba nga xam ne sa baay dina waaye da nga ko tax taxawaay taxawaay boo xam ne dañuy xam a tijaan eh, amaana taxawaay kooku boo xoolee bu woon ku ku yaatal da doxalee noonu demal kenn ba demal fu nekk boo xoolee mu si gaawaan kon demee daal su yàlla moom mooy si gaawaan nangoo liggéey sëriñ la boo xam ne li fi bàyyi ci ay bien ci liggéey lépp askan wi taxoon lu doo tala waaye dëkk bépp Sénégal gépp boo xoolee kon fu ne am na fa daan tool jàppal dem ay semence bi dañ daan taxaw ngir ñëpp man am liggéey mën a am xëy suñu gaaram bëri moom bëgg ne yu koy fréquente yoo xam xëy déedéet koo ko jege yëpp ñeneen ñi moom bu liggéey gerte ngay liggéey bay gerte bay bu luuma gerte nga dem luuma moom kon ndaw yi nañ gën a jàngaat nangoo jaamu yàlla nangoo jub waaye nangoo liggéey nag tey def sëñ Tuubaa tey def sëñ Tuubaa bu baax a baax loolu ko sax lekk lu mu lay dénk sa bopp di koy dénk ñëpp صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل والسهب درر مع سلام يعتمي يا ملمن قد وفقا سل على من خلقا wala xalqa faaqa xoloqa kal xalqi wal tusallimi qad kaana daa tawasuti fi lqaddi jaali sututi walam yakun bil mufrati walam yakun bi aadami walam yakun mutaama walam yakun mukalzama bal faaqa kulla man sama min muntamin li aadami kaana yatulu kulla man maasha wa fi kulli zaman wa kaana waasi'atan yadaku bi tabassumi wa huwa jalilun qullabo bayaado musarrabu bi humratin wa dabo wa anjalun zuura sami yaftaru fi adna ibtisam kalbarqi aw habbil ظلما ودهكه يجزل كسرج في ظلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم mbokk yi adduna bi Euh, jullit yi euh, yoonu murit fii ci daaru salaam di dëkk bu sell bu màgg bu tedd boobu nga xam ne Seexuna Ahmadul Xadim bi mu jógee ci géej gi fii la wàcc ay bagaasam fii la tijjee ay sëricaam ci wetu rakkam di maam Cheikh Anta borom gaawaan euh, maam Cheikh teeru ko teeruwaay boo xam ne ci l'histoire ci àddina sosoo ba bis booba mësee su ta gis Euh, teeruwaay bu mel noonu ci lépp loo xam ne des na ko terale ci lu dagan Seexuna Ahmadul Xadim ak dikkam googu ci dëkkam bu sell boobu di Daaru Salaam nga xam ne mooy dëkk bi nga xam ne moog Tuuba moom la ko yàlla tànnaloon ngir mu jaamu fi yàlla bil iman wal islaam wal ihsaan bus bu tedd bii nag di juróomeelu bis bi nga xam ne biñ tàmbalee liggéey bi bu sell bi ci njàngam alxuraan bi ñu koy tëj ci bis bii di bisab màggal gi ñu fas yéene jox kàddu gi euh, jëmm joo xam ne ah ku xam Daaru Salaam xam liggéey ah, maam Cheikh Anta xam sëriñ ah, ah, xam bu baax a baax sëriñ njaga Sylla. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ak Serigne bi jërëjëf ñoo leen di nuyu bu baax tey sant ci seen teewaay bu rafet bi ngeen teew ngir jël si ay xibaar ak leerlu ci solos màggalu Daaru rawatina nag wàllu njàngum alxuraan mi eh, ci tënk rek ngir xat bi xataayu barab beeg xataayu jamono ji danga ñëw ngir bëgg a am ay leerlu ci kaamil yi nga xam ne moom dañuy jàng di la xamal ne diirub ñeenti fan yi li nu jàngagul total bi lépp sax nag àggagun ca waaye bis bu nekk mën nañ lañ laa jox bañ tàmbale léegi li jàngagul ci benn bis bu nekk bis bu njëkk bi jàng nañ 1056 kaamil ci bis bu njëkk bi nga xam ne ci lañ tàmbalee woon bis bis ci tegee de bu ñaareel bi jàng nañ 1366 kaamil mooy bisu ñaareel ba bisu ñetteel bi jàng nañ 1451 kaamil euh, bisu ñeenteel bi nag moo waaw bis bu njëkk bi 1056 bu ñaar bi 1366 bu ci bu ñetteel bi 1451 bu si ñeenteel bi 1685 am na bisu tey bi nag moom dañoo totalee gut ndax wàcceegun ba total ba xam lu mu doon lim yooyu daal foofu lañ tollagun 1056 1366 1451 1685 loolu daal mooy li moo xam ne moom lañ tënkagul. limab kaamil yi nga xam ne euh, jotees na ko jàng ci bi liggéey bi tàmbalee ba nopp ba ba tey jii. Euh, bisab gaaw bi wees muy samedi euh, ñi ngi jot a jàng luy tolloog 1056 kaamil 1056 kaamil euh, di junni ak juróom fukk ak juróom benn kaamil bisu dimanche bi ñi ngi jot a jàng 1366 kaamil di junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn bisu altine ñi ngi jot a jàng 1451 kaamil di junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn bisu talaate di démb ñu ngi jot a jàng 1585 kaamil di junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett ak juróom mu des bisu tey bi nga xam ne ñu ngi toll ci recomptage limab kaamil yi incha allah bu matee rek dinañ leen ko jot li kala modak bin qadata fiha bi nafsin sabata عني نجد غداتا في معجزات المكرمين كان يزور منزلا رضوانك يبجلا منات يور مصلى على زوي تعظمي نهى إلى بج الحرام لكي يسير زنيدام مستدرج من الأنام للجل بالمعدم والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعل كيدهم في اليهم والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعل كيدهم في اليهم